te di sant di sargal tam population Sénégal bi nga xam ne ñoom tam ñoo ñooñu tànn teg ñu ci pencu ndaw réew mi kon nag ñu ngi leen sant ñoom ñëpp rawati nag suñu président bi nga xam ne moo ko jëkke ñu boole ci liste Benno Bokk Yaakaar bi ngi sant ñëpp sant responsable ñi nga xam ne ñëpp ñoo ba ñun nag yàlla ñoo de yàlla moo def ah ñu nekk fii ñeneen ñi nekk fële tam jàppale nañu taxul tam ñu gën leen a xam li ñuy def wala ñu gën leen koo mën nag yàlla nag moom mooy tànn ñi ngi ñaan yàlla nag li ñu tànne nag ñu def ko ba mu mat sëkk ñu koy ñaan yàlla mu jàppale ñu ci kattanam mu jàppale ñu ba li ñu tànne du ñu décevoir kenn du ñu décevoir suñu président du ñu décevoir groupe Benno bi du ñu décevoir sam la population sénégalaise. président Moustapha Niasse euh, ni mbir mi tëddee war ngeen mën a déggoo waxtaan liggéey bi rafet wante nag euh, ngeen bàyyi ba loolu nga safaanoo loolu daal yaakaar na ne. warul waaw wax wax moom. wax ko niñ ko gisee tam wax bu am fulla la wax bu am fayda da ndax defe naa ne ay nit bu ñu bokkee di def dara ñoom ñëpp ñu gëm ko def li ñu def bu ñu fekkee ne ñun ñëpp intérêt population bi moo tax ñu nekk fi defe naa ne waxtaan ba juboo mën naa nekk wante bu fekkee ne nag ñii dañuy waxal pour population bi ñii di waxal pour seen bopp di weddi li fi nit ñi teg te duñ fi teg leneen defe naa loolu tam lu metti la. parce que nag ànd nag bëgg a ànd ak nit nag dafay fekk nag kooku nag bëgg a ànd ak yow te ñu fas yéene liggéey ci fulla ak fayda di nawit naw ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi teg fulla ak fayda ak jom ñoo ñu fi teg intérêt population bi ñoom lañ fi nekkal li tax ñu nekk fi pour loolu la te defar moo tax ñu nekk fi te ñun ñëpp bu soobee yàlla bu ñu àndee nekk benn xam lu ñu bëgg teg ko ci yoon nag bañ a jiital suñu bëgg-bëgg nañ jiital bëgg-bëggu askan wi nit ñu ko waxee ñu defee ko waroon defe naa ne kat suñu président de la république président Macky Sall askan wee ko fi tax nekk te defe naa ne bu ñu suivee ay directives am defe naa askan wi bu soobee yàlla dinañ ci gis seen bopp jërëjëf. maa ngi jaale askan wi yëpp li ñu naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax àdduna dañ fee ñëw rek ci contrat lii war na ñoo yee parce que leçon la bu ñu jox parce que kenn saxu fi ñun ñëpp dañuy dem te gis ngeen moom lu baax la fi def lu rafet la fi def kon nag ñun tam dañ leen def lu baax def lu rafet te xool ne kenn dëkku fi ñun ñëpp dañuy dem kon nag nañ ko rafetal ñu ngi koy jaale waa Sénégal yëpp te xam ne am nañu perte bu mag a mag a mag bibliothèque bu mag dem na